ginnaaw ba ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ci suñu dars ñeen fukk ñetteel ci xilaasu dahab fi sirati xayril arab ñu toll ci fas thani achra ba tey mooy buntu dogu fukk ñaareel bi yoo xam ne mu ngi jàngale fii dikri l israi wal hijrati ila al madinati al munawwar dog bi jàngale gàddaay bi yonent bi gàddaay woon dem dem rañaan bi ak gàddaay gi mu gàddaayoon jóge Makka dem Madinatul Munawwara tàmbali woon nañ dog boobu ba yeggoon fi nga xamante ni yegg na ci barab bu ñuy wax masjidul quba nga xamante ne mooy jàkk ji nga xam ne foofa yonant bi sallallahu alayhi wa koy wax masjidul quba jàkk jooju nga xam ne fa la yonant bi njëkk jullee julle juma yi nga xamante jant bi ko na ci diggu njolloor waxtu wi daal di ko fay dab mu daal di fay julle ci fu ñuy wax place bu ñuy wax bani salim ibn auf boo xamni ñom lañ koy askanale fa la julle bi mu fa julle mu ngi andon ak julle ti ñu tollon ci témèr ci ben jàkk bu ñuy wax euh am nañu koy tuddee masjidul jumaa ba ak masjidul waadi ak masjidu atika yooyu yëpp dañ ko koy wooye jàkka jooju mooy nekk ci fu ñuy wax batna waadin waadi raanuna ñoo ne ci bayti jàkka ju ndaw la woon ñoo xam ne ñu ngi ko tabaxee xeer la yonent bi njëkk jullee sallallahu alayhi wa sallam première jumaawam nga xam ne jàkka jooju masalan ku dem masjidul quba buy jógee masjidul quba Eh, bu génn jëm ci bu kulliyatul banaat daf koy féete côté ndey jooram maanaam madratu madrasatu sanawiya bi ne foofu école bi nga xam ne ci école eh, lycée la ci Saoudia ci zone booba muy jax jàkk boo xam ne jàkk bu am importance la ci taxawaay ci lislaam bi mu foofu nag daal di départ continuer nag dem madinatul munawwara ginnaaw ba mu jullee jumaa ba pare nga xamante ni yow jëmee madinatu munawwara am ku ñuy wax utbaan ibnu malik ak abbas ibnu abbad ibnu nadala nga xam ne ñu ngi bokkoon ci waa bani salim googu ibnu awf ñu ne ko yaa rasulallah te ngaa ñëw sax ci ñun te ngaa te ngaa ñëw wàcc si fii dal ci ñun yonent bi sallallahu alayhi ne leen bàyyi leen ku mu leen gilem gi dañ koo dañ koo digal maanaam ci ndigal lay dox bu yeggee fi mu war a toog rek dana fa toog am dajeeg ñoom loolu lañ ko wax mu tontu leen lool ñu bàyyi ko mu dem ginnaaw ko it mu dem dajewaate ñi nga xamante ne ñooy bani bayda bayaada ñu wax ko ñu wax ko loolu ñi ko ñee waxoon tamit mu tontu leen loolu tamit ñoomit ñu bàyyi ko mu daal di dem ginnaaw ga it mu dajeeg waa bani saida ñu wax ko ñaa waxoon waa bani salim ibn awf mu tontu leen lam leen tontu woon ñoom it ñu bàyyi ko mu dem ginnaaw ga mu daal di dajeet ñi nga xam ne ñooy bani saad ibnu rabia dégg nga wa xaarija ibnu zayd ak abdullah ibnu rawaxa ak ñi nga xamante ne ñooy góoru góoru uh, ñi nga xam ñooy uh, ngiru bani xaaris ak alxazraj ñu wax ko loolu yonent bi tontu leen loola ñoom it ñu bàyyi ko mu dem mu daal di continue noonu la demee borom ñi nga xamante ne ñooy daaru bani adi ibnu najjar nga xamante ne ñoom ay nijaay lañ woon ci abdul muttalib ndax abdul muttalib yaayam mu ngi tuddoon salma bintu amr bokkoon kenn ci seen jigéen ñooñu ñu dogale ko ku ñuy wax euh, ku ñuy wax solaytu bnu qays am ñu koy wax solayt am ñu koy wax salit dégg nga solaytat solayta kon solaytatun am ñu koy wax solaytun rek ñu doog mu dogale ko ñu ko dogalee wax ko la ña jiitu wax mu tonti leen lam leen tontu ñoom it ñu daal di koy bàyyi mu daal di dem loola nag la demee ba dugg madinatul munawwara ba mu duggee madinatul munawwara العيسان صلى الله عليه وسلم فك صحابين ينكور جنوبا وشمالا غرب شرقا وغربا ينكور ني دي دوخ ني غي وار اك نيغا خامني نيوي ليغي كات يي مانام خادم يي اك غوناي وار كو ني واخ الله اكبر الله اكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء محمد صلى الله عليه وسلم لول لا ندون واخ ñiisaan mu daal di ñëw ba mu ñëwee nag ba yegg si nag yonante bi sal alai sallam moo ngi ci kaw gélém ji eh, laxab bi mu takkoon gélém bi mu daal di koy yalamal tuuti bàyyi ko muy demal boppam ci la gélém gi demee ba yegg ci daaru bani malik ibnu na jaar mm, dégg mu daal di goor foofu mu goore après mu jóg mu jug daal di continuer continuer yonent bi sallallahu teewul mu ngi nekk ci kaw gëlëm bi rek ba mu ba mu jugee foofu daal di continuer di dem di dem di dem di xool ndey jooram di xool càmmoñam ak ki jekk mu daal di wàññeekuwaat ba mu wàññeekuwaatee daal di gooraat foofu mu gooree nag foofa nag mooy fi nga xamante ni mooy barab bi loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu war a jàng tey ci suñu darsu bi tey incha allah ci abiyaat yi moom la moom la góor gi wax ne aqaama inda al quba daallan wa assasa ma qad kaana ussisa fi taqwa maa al udami mu ni aqaama sax na moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam inda al quba ci masjidul quba daallan ñeenti fan daal lan ñeenti fan wa assasa mu daal di fay fondement maa la nga xam ne qad kaana nekkoon na ussisa di li ñuy fondement fi taqwa ci ragal yàlla maal udami ànd ak mbooloo mi wa daaka awalu ma salla annabiyu bihi jamaatan alanan maa saxbihi alkarami mu ne wa daaka foofa ci quba mooy masjidu quba bi ñu doon wax sànq awalu ma salla annabiyu mooy fi yonent bi njëkk jullee sallallahu alayhi wa sallam bihi ci moom jàkka jooju jamaatan mbooloo alanan ci lu ber maanaam mbooloo mu fés maa sahbihi ànd ak saxaabaam alkarami ñu tedd ñi mu ne nag yowmal arubati jalla al badru tudrikuhu salaatuha fa ataaha gayra bu'tatin man yowmal arubati bisu aljuma nag jalla ca la déparé maanaam ca la génne albadru mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu génnee tudrikuhu dab solaatuha ak julleem fa ataaha mu daal di julliga xayra muatatimi ci dudul yéexi ko mooy julleem googa ladaa bani saalimi alcaaliina fi miatin yaa fawzahum cinda raanuuna awaadihimi mu neew ladaa bani saalimi saalimin mu ngi jullee فافني وحنجير بني سالم العالي لن يغا خمنتني ويكاولن في مئة بابا صحاب ني ما اندلون ني تولون تي تيمير 100 بيرسون من يا فوز فوزهم ماغي يمو سينو تخي ني كو ديفاي وون عند رانونا اجي بلاص بو ني وخ رانونا وادي هي ميغا خامني مو سين خروا في مسجد قدر نصف القد قد دعيل غبيبه tasxiira rabbin saa'ili gatani mu ne fii masjid yi ñu ngi jullee ci benn jàkka boo xam ni jàkka ju ndaw la qadru nisfil qaddi boo xam ne mu ngi tolloog genn waayu ta genn wàllu taxawaayu nit maanaam jàkka ju ndaw la te gàtt qaddu ya ñi ngay wooye jàkka jooju al xubayb la tudd nga xam tasxiira rabbin mooy tasxiiru rab tasxiir boo ko déggee ci arab lu mel ni ñu Eh, bu dee ci wolof mooy mooy mooy sii waaye waa si waaye sii moom waaye sii wala gone sii waaw ci wolof loolu la ñu tuddi tasxiir xam nga sii bu ko wolof waxee rek kooku tuutal na ko gone sii wala lëf wala lëf lii tuutal na ko léegi nag macha masalan boo jëlee buñ ne ah, masalan buñ ne ah, abd buñ koy sawal di ko tuutal dañ naan ubayd noonu la mel dañuy tuddee tasxiir moo tax baat bi xabb ñu tasxiir ko muy xubayba moo tax ma ne danga koy tasxiir muy xubayba te di tasxiiru xabbin saa'ili yow mi may laaj iqtanimi na nga màng koom nee na ginnaaw ga ba mu jullee foofu moom yonent sallallahu alayhi wa sallam mada wa man marra minhum qailuuna lahu alqil asa talqa xayra al amni wal udami ne mada ca la wayee nag wa man ak képp koo xam ne marra képp koo xam ne marra romb na minhum ci ñoom qailuunahu qailuuna ñi ñiy wax lahu ñeel ko ne ko alqil asa waccal yat wi boo ko defee tal di nga dajeg xayral am ni gën jig kóolute maanaam sécurité wal udami ak mbokkoo mooy ñim doon dajeel ñi naan ko wàcceel fii ñi naan ko wàcceel fii kaay daal ci ñun ci misaal mu naan leen gëléem gi dañ koo digal nañ ko bàyyi mu dem fu mu war a wàcc rek dana fa wàcc mu ne walam yazal dañul qailan di wax mustanzilihi ñiy sàkkoo ak wàccam mooy ñi bëgg pour mu wàcce ci ñoom dal ci ñoom deñul naan leen fa hiya moom gëlem gii de mamuratun ku ñu digal la zaatu idnin boroomu digal la kon nag sawwi mu xàlle leen ko bu ngeen ko defee rek bu ko defee tasumi dana gaaw gaaw yegg fa mu jëm moo tax min ajli dalika قد أرخى أرخى الزمام زمام لها قد حتى تنوخ باب المسجد الحرام من من أجل ذلك العلماء قد أرخى ينونت بدال دي يلمالون الزمام نسكوي maanaam mooy mooy mooy mooy kii bi laxaab bi laxaab bi nga xam ne moom lañ laxaabee fas bi gëlëm gi yolam bi yoram yonent bi da koo yolamaloon seerewul woon da koo yolamoon laxaa ñeel ko moo tax mu ne xatta tanawaxa ba mu yeesal baabal masjid yi ci buntu jàkk ji alxaram yi bare bu ñu armaal la dem nag ba daal di yeesal nag ci fa nga xam ne mooy buntu jàkk ja mooy masjidun masjidun eh, nabawi sharif walbadru ma xalla anha summa qad wasabat saarat walam tan a waljaxjaaxu lam yaqum mu ne walbadru yonent bi salaa sallam ma xalla anha wàcc ko summa ginnaaw ga nag summa topp na qad wasabat daal di daal di daal di tebb dafa njëkk wàcc foofu kon wàccee ci buntu jàkka ji daal di jugaat kon gëlem ci yonent bi nekk ci kawam rek wàccul xadwa summa ginnaaw gi nag suma topp xadwa sabat gëlem gi daal di jugaat mooy tëb mooy jugaat sarat daal di dox nag walam tan a te soriwul nag mi mu doxee doxaatul dox bu sori wal jax-jaaxaw te teewul ki nga ne mooy sang bi di yonent bi lam yàqu mi euh, wàccul gëlem gi mu ngi ci kawam maanaam jug jugu fa mooy mu ngi ci kaw gëlëm ba tey waaye talafatat mu daal talafatat xalfaha alqaswaau rajiatan waahan wa waahan laha lil mabrikil qadimi talafatat mu daal di gestu xalfaha ci gannaawam moom gëlëm bi wala nga ne talafatat daal di gestu alqaswaau gëlëm bi xalfaha ginnaawam rajiatan di aji dellu fa mu jóge woon moo tax mu ne rajiatan daal di dellu lil mabrikil qadimi ñeel góor waayam bu njëkk ba fa mu njëkkoon góor foofu la dellu siwaat léegi Sëriñ Maalik mu ne waaxan maa ngi yéemu wa waaxan akug yéemu laxaa ñeel gëlëm ji nga xamante ni dañ koo digal ci ndigal lay dox loolu la ñuy foofu la ñuy taxaw incha allah bu ñëwee yeggale yi ab yaatu ci des yal na yàlla defal dégg ak topp qul qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wassalaamu aleykum